Babacar sur le plan de la communication dama bëgg ñu des foofu tuuti euh, c'est vrai Macky Sall accordé na grâce présidentielle à Khalifa Sall. Mm-hmm. mais tamit dama bëgg a xam aujourd'hui qui tire maanaam profit de cette affaire Macky Sall moo ci tiré moo ci bénéficié wala Khalifa Sall moo bénéficié wu ci affaire bi. Euh, ben c'est man man que ki fi njëkk a gagné Khalifa la parce que Khalifa aussi quoi qu'on dise euh, ñaari at ak genn wàll bi ñu ko tëjee deux ans et demi dégguñu ko quand benn yoon mu wane ni jaaxle na. en tout cas si denc bi ñu ko denc je crois que sax image boobu la ñu bëgg a fi mu nekk nii ba nga tax ñu naan grâce bi ñoom demandé wuñ ko mas ñu ko laaj xam nga président Macky Sall aussi tëjoon na boppam si benn mbir mhm. daal ne woon il fallait que Khalifa Sall ñaan ko pour mën ko bàyyi xam nga dès que posé na condition boobu euh, donc il fallait que Khalifa ñaan pour moom mhm. si comme Khalifa ñaanul gis nga finalement entente am si ak beneen avocat euh, maître Khassimou parce que il fallait que mu jaar noonu am benn contexte également Massalikul Jinaan bi nga wax ni c'est vrai am na solo par rapport ak acte bi mu posé d'ailleurs moo yokk coow li parce que Karim Wade bi ñu koy génnee amul woon benn <laughs> benn prétexte bu demee noonu. moo tax nga doon wax dil bi euh, doon ko wax ba si sa Seck sax jot na ko wax. Mhm. Euh, manière bi ñu génnee Khalifa euh, Karim Wade. mais fii amu fi fii maanaam sëriñ bi dafa wax finalement mu coïncider ak retrouvailles c'est vrai il a bien fait docteur de dire que moom gisagul juboo maanaam daje la. ñaari retrouvailles mais nag am na un nag de plus. réconciliation de façade la wala lan la. waaw mais dafa am c'est encore c'est méchant de dire ça. non mais non non wax loolu parce que euh, seen retrouvailles. Hmm. nit ñu bëri doon nañ ci dox yàgg nañ cee dox. loolu euh, lu lu mat a noté la. Hmm. ba jote bi am daje bi nag dafa fekk ni Ablaye Wade avant may wax ci Khalifa Sall daf ci gis intérim président Macky Sall gis ci intérim parce que en fait sëriñ yi laajte ñu mais le président Macky Sall. li mu waxoon liewu deuxième mandat boobu mënoon na tax yàgg nañ koo ñaan mais nanguwu si benn ñaan pression bi sax foofu la gënoon a metti avant élection 2019 nanguwu si woon dara parce que comme ni dafa amoon obsession deuxième mandat bi mu demee nag ba nga xam ne am na ko lii yëpp ay prétexte la man li ma gis si président Macky Sall ay prétexte la yoo xam ne dafa daje arrangé ko mu mu ab Abdoulaye Wade ba pare daal di daal di baal xalifa Sall parce que tout simplement am na occasion bu mu ko defee mais tant que amul woon deuxième mandat bi du ko def pression bi fa la gënoon a méttee nangu moo tax j'ai l'habitude de dire que te vraiment c'est pas exagéré de le dire pour man le président Macky Sall amul benn mérite ci yi nga xam ne moo am retrouvailles yi parce que tout simplement am na deuxième mandat bi ko soxaloon léegi nag bu ko neexee mu woote waxtaan parce que amatul enjeu politique en tout cas pour le moment mhm. fii ak cinq ans yi di ñëw te c'est important que également mu apaiser reñam bi dernier mandat ou deuxième mandat bi pour mën a yegali parce que loolu wax nañ ko ba tàyyi nit koo xam ne du am deuxième mandat au niveau même du am dernier mandat la au niveau même de Benno Bokk Yaakaar nit ñu bëri gis nga yaa ngi gis euh, coow li bëri parce que ku nekk yaa ngi positionné wu hmm. maanaam boo amul ndombo tànk aujourd'hui peut-être doota ko amati moo tax loolu tension boobu am au niveau même de la euh, de la majorité ñu koy sentir ku nekk di xaar ndax dinañ ma fal wala duñ ma fal sinon damay génn dem feneen parce que am na perspective wu 2024 il faut ku nekk xool ban pôle laay mën a bokk pour mën a bokk donc yëg contexte boobu amoon na solo pour que président Macky Sall fay daay bi nga xam ni mooy takk ci opposition bi te aujourd'hui le fait que mu jubóog Abdoulaye Wade am na solo parce que Abdoulaye Wade aussi ñëpp xam nañ ni ben moom mooy leader opposition euh, opposition bi nga xam ni en tout cas le parti le plus représentatif malheureusement bokkul woon ci élection bi mais gaawantu na gaawantu na ak beneen front bi am fi ñoom Omar moo tax ma ni intérêt Abdoulaye Wade mi ngi ci woon fronde bi nga xam am na si ñoom Abdoulaye euh, Omar Sarr ak maître euh, Amadou Sall c'était important que mu couper leen l'herbe au pied dem gisante ak Macky Sall parce que ñëpp neewoon nañu ñooñu kat seen yoon mooy il se rapproche du président Macky Sall parce que Omar Sarr dem na bokk ci dialogue boo xam ne moment boobu Ablaye Wade bëggul parce que Ablaye Wade le moment n'était pas encore venu pour moom mu toog ak Macky Sall mais ñële dem nañu gisanteeg président Macky Sall parce que bokk nañ ci dialogue bi il lui fallait moom mu trouver un prétexte tombeek président Macky soxla ko moo tax loolu yëpp c'était des enjeux politiques au niveau du PDS et au niveau également de l'opposition en général gis nga mu ngi nommé waat ay nit pour front de résistance bi ñu ko ñu ko représenté donc am benn bouillonnement boo xam ne dafa amoon contexte bi si prêté président Macky Sall daal si profité def ko mais Khalifa Sall daf si gagné. parce que li tax mu gagné si wax naa la léegi parce que le fait que ñu denc ko depuis deux ans et demi déggoo ko benn yoon aussi mu wane ni xàddina si denc bi ñu ko denc ces aussi même benn moment pression bi wàññeeku na parce que mobilisation bi ñu doon xaar sax c'est vrai au niveau de la rue ak tout ça gisuñu ko si ñi nga xam ne ñoo ànd ak euh, Khalifa Sall taxaw Dakar mais moom je crois que garde na aura boo xam ne victimisation bi ñëw yokk si bi mu génnee gis nga ñi nga xam ne sax peut-être demoon nañu parce qu'il a perdu Dakar au niveau des élections euh, jàppale na it Idrissa Seck une mm. partie de Taxawu Dakar mais gis nga ba ci ba ci Grand Yoff sax daf ko ñàkk donc amoon na conséquence par rapport a ces élections mais aujourd'hui génnaat bi mu génnaat ak espoir bi am ñu am amnistie leen parce que li tax wax jooju am ni xalaat nañu ni Karim Wade bokk élection ak xalifa Sall parce que dañoo yaakaar ni euh, disons ab Wade retrouvailles am ak Macky Sall amu ci benn intérêt moom parce que vraiment mën nañoo xalaat ni nekkatul dirigeatul PDS organiser na ko teg fa ay xale yoo xam ne ñooy continuer PDS aujourd'hui li muy liggéeyee rek pour dajeek Macky Sall mooy PDS nan la mën a continuer survivre Karim Wade doomam bi nga xam ni jiital na ko mu nekk secrétaire général en fait topp si moom boo xoolee nan la Karim di ñëwaat si seen politique bi loolu moo soxal Ablaye Wade donc amul benn waxtaan bu mu mën a waxtaan ak président Macky Sall wala benn gisee bu budul

apaisement du climat social ak politique. yaakaar nga Macky dina euh, euh, non li may li may xalaat rek mooy que ni. am na benn buntu bu mu tijji. buntu bi mu tijji mooy que ni Khalifa Sall génne na ko prison gisante na ak parce que man gisante ak Ablaye toujours Karim Wade laay gis si ginnaaw. ñooñu peut-être am na ay buntu yoo xam ne tijjeeku na par rapport ak amnistie ma mën a am loolu la ñuy xalaat maintenant calcul politique bi li nga wax dëgg la. président Macky Sall même bu nekkul candidat dafa am benn majorité bu nekk si ginnaawam. Mhm. benn bokk yaakaar. est-ce que calcul politique am yooyu dina tax nga xam ne dina sacrifier ba encore euh, Benno Bokk Yaakaar mais je dis que euh, Macky Sall a causé assez de fissures au niveau de la classe politique sénégalaise dans son ensemble te man li may gis mooy que ni mu defaraat li nga xam ne parce que ce qui s'est passé boo gisee muy metti nit ñi élection yoo xam ni quatre candidats la ñu tànn pour mu jàkkaarloo ñoom docteur wax na ko léegi je crois que aujourd'hui le président Macky Sall pour mën a apaiser sa fin de règne en tout cas mandat bi ko desee il faut que mu apaiser te ñëpp xam nañ ni aujourd'hui ni mu génnee Khalifa Sall justice bi nga xamee ni ñoo condamné xalifa Sall mais boolewu leen si toog na ba mu neex ko moom mu génnee moom mu génnee Khalifa Sall nit ñaa ngi gis les les dessous politiques mooy li ngay wax ci déchu libération déchu politique bi taxoon mu denc Khalifa Sall ñi ngi gisaat loolu si la manière dont noonu la bàyyee Khalifa Sall te aujourd'hui le discours aussi bi ma commencé gis si ñi ànd ak Khalifa Sall un discours assez apaisé assez modéré boo xam ni peut-être am nañu yaakaar ni surtout que bokk si ci dialogue bi. Ah, que ñoom bokkoon na ci condition yi ñu nañu bàyyi Khalifa Sall balaa ñoo dem. voilà mais mais non seulement doom nañu parce que soo am war di nii gis nga mi ngi si dialogue bi taxawu Dakar en tout cas ñi ngi si dialogue bi. am na une partie bu nekk ci dialogue bi même si boo déggee une autre partie ku mel ni Barthélemy Diaz dégg nga ko dégg naa sortem moom mi ngi wane benn benn jàmbarloo benn benn rigueur par rapport ak comportement bi xalifa Sall wala lu ci mën a am mooy kër yi le président Macky Sall pour man il a intérêt à ouvrir le jeu politique mm-hmm. parce que mënul continuer te gis nga mënul toog aussi benn moment di xalaat ki koy ki koy remplacer non li mu man rek mooy poser des actes yoo xam ni mais le président Macky Sall manul taxaw daal di nekkat fi mu nekk nii kii moom may remplacer jiw parce que erreur bi mu def dama koy wax toujours dafa am benn manque générosité. mais c'est de bonne guerre quand même. non benn manque de générosité mais xam nga mën a def ah. bi fan la. xam nga erreur bi pour man. Hmm. créé wul Abdoulaye Wade erreur am créé na des hommes d'envergure des responsables d'envergure yoo xam ni même bu xuloog ñoom après ñoo ñoo continuer pour mu gisaat ak ñoom ku ci ku ci bopp bi génn rek mu dagg sa bopp. voilà mais mais mais je veux dire mais aujourd'hui c'est plus facile. Mm-hmm. pour Ablaye Wade toog ak Macky Sall dañ naan doomam la ba léegi pourquoi ñu wax loolu. parce que quand moom moo créé Macky Sall du point de vue politique. Idrissa Seck peut-être toogaat ak Ablaye Wade mën na bañ a metti mais président Macky Sall gisuma au niveau de l'APR mu tijji carte yi jeu yi ah loolu laay wax ni manque na générosité boo xam ni même au niveau de Dakar. créer des personnalités d'envergure yu mën a jàkkaarloo Khalifa Sall bu fekkee nag yow aussi parce que attention li Ablaye Wade ouvrir jeu bi au niveau de son parti Macky Sall deful loolu le président Macky Sall amul benn leader d'envergure au niveau de l'APR boo xam ni mettre na ko dans des conditions pour mu mën koo remplacer donc bu desee quatre ans aujourd'hui pour mu jóge fi mais day gën a mettre ci moom aujourd'hui bu fekkoon créer na les conditions d'être succédé par quelqu'un mais du soxla di galgal ñii galgal ñële. mais dégg naa loolu dafay yàq liggéey bi déggoo sa xarit Maodo Malick Mbaye defoon fi conférence temps yi ay mu ne dafay sappe li nga xamante moo di la bonne marche du second mandat. non boobu dañuy wax ni ñi nga xam ne. ngi ru mandat ci suuf. waaw mu ne mu loolu dina ci mën a wax. <laughs> mais mënoo nekk président. Hmm. daal di yamale ñëpp. dane yow doo def kenn koo xam ni day nekk dans une posture boo xam ni boo fi jógee dalay lay remplacer mais aujourd'hui moo tax lan la donc il n'a di galgal di empêcher kenn pour mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar les conditions pour ki koy remplacer jógee benn Benno Bokk Yaakaar eh, ba léegi créé wu ko toog na 12 ans euh, 12 ans lay toog mais créé wul condition pour ki koy remplacer jógee majorité créé wu ko loolu mooy erreur am donc aujourd'hui nan lay def day bëgg ñëpp toog na teg ba mu jóge fi en 2024 loolu mënul nekk tu verras bientôt au niveau même de l'APR au niveau de la majorité les ambitions vont sortir est-ce que dañuy génn ci majorité bi demal seen bopp walla déet mais loolu mënul ñàkk parce que il n'a pas créé les conditions pour nit ñi topp ci kenn daal nekkat kii moo ay remplacer ëllëg créé wu ko. jaajëf Babacar